mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp di leen siyaar di siyaar senegal yëpp ah, di dellu di jéggalu tey jéggale di ñëw nag eh, balaa ñuy jublu dëgg-dëgg nag ci li nga xam ne ci woote bi ñu wooteek ak yëglu bi nga xam ne ñu ngi koy yëglu ah ñu ngi wane nag sunu eh, di ndokkale ak di ak di jaale ak di wane sunu ànd ak waa dëkk bi yëpp di nangu nag ñu may ñu nopp may ñu xel ci woote bii nga xam ne ñu ngi koy woote ah ñu xam ne nag Sénégal waneete na boppam ci li nga xam ne lii moom mooy euh, njàng bi nga xam ne jàng na ko ci démocratie nga xam ne Sénégal wane na ko ci boppam nga xam ne ñun ba ñu tàmbalee wote ah boobu ci ay année yàgg la boobu ay 1800 la ci lañ tàmbalee wote wote bañ daan wote nag da daan ànd ak dal ak teey ci diggante ay waaso ci diggante ay xalaat yu wuute di ak ci nga xam ne ay jëmale yoo xam ne bokkul ak ay péete lépp nag da daan doon ci waxtaan ci euh, ci ay werante yoo xam ne yii lépp ci démocratie la daan am parce que mag ñi ñoo ko daan jiite xam li baax ci réew mi ñu koy ñu koy defalante ñu koy def nag ci dialogue ak concertation bu wér boo xam ne moom lañ daan boo xam ne nag day méngoog ñun suñu dundu réew ak suñu culture ak sunu sociologie ñu daa daan àndan nag xel mu dal ci diine ak république parce que ñaar ñooñu dañoo nekk ñoo xam ne dañoo war a ànd ci réew mi parce que réew moo xam ne ah, ay diine dañ faa daje ah, république rek moo leen mën a taxaw saytu leen ba ku nekk gis ci sa bopp léegi nag vraiment loolu daal lañu doon ñaan yàlla sunu borom ñu xam ne nit ñi ñu continuer façon boobu ñu daan defee ñu bëgg nit ñi continuer di ko def ci nga xam ne day ànd ak droit yelleef tamit di ànd ak wareef parce que foo tuddee dëgg-dëgg euh, euh, wareef war nga faa tudd yelleef moo tax nag loolu nag moo war citoyen ñu ngi ñëwaat nag di woo di wax nag ak sunu ñi nga xam ne ah ñooy sunu waa réew balaa ñuy wax ak yéen ñu jigéen ak góor ah sunu waa réew mi ñu ngi nga xam ne dëkk bi nga xam ne sunuy maam ñoom ñoo ko xeex démb ak bërki démb ba tey ji ñu fekk ko fi ci ñaq ak deret ñu ngi am benn xalaat ah, ak ay eh, jaaleeg eh, massawu sunu mbokk yi nga xam ne noppaluku nañ ci ak ñi nga xam ne ñooy sunu mbokku euh, force de défense de sécurité yi nga xam ne ñoom ñëpp am nañ ci gaañu gaañu ak ñi ci am lépp ñu ngi leen di jaale di massawu seen waa kër di massawu réew mi yëpp parce que li lépp Sénégal benn la lépp ñoo ko bokk lépp nag jóge ci li nga xam ne li ci jëfante la ci diggante takk der yi ak xale yi nga xam ne yi dëgg-dëgg ah ñoom lu leen ci dugal it am na lu leen ci dugal te xëy na xamuñu ko sax te loolu yëpp nag mu ngi jóge ci diggante ñaar ñoo xam ne ñi déggootuñu ñuy ñaari citoyen yoo xam ne déggootuñu ca la nga xam ne lii ñoom moo leen boole woon ñu dem nag mu nekkoon yëfu loo xam ne lii yëfu néeg la woon yëfu privé la woon ñu jékki-jékki ah dugal ko ci biti te nag dafa waroon a nekk loo dafa waroon a yem ci li nga xam ne lii mooy loo xam ne yoon bi nga xam ne moo yor Sénégal muy justice moo ko waroon a àtte ci euh, ci yemale ak ci li nga xam ne ñi ñëpp ñoo xam ne ñoo bokk réew mi juridiction yi nga xam ne yi nag ñoom nga xam ne ñooy appliquer li nga xam ne li mooy état de droit ñoom ah, loolu dëgg-dëgg affaire bi dafa mujjee génn seen loxo ba mujje ci mbedd mi mujje doon xeexu mbedd loolu nag bu amee dafa am ku woote woote ba mu woote nag dafa mel ne woote jéngu la weetu woote fantasiro woote boo xam ne dëgg-dëgg ah, ki ko def moom dafa am taxawaay ci réew mi am taxawaayu politique bu wér boo xam ne kenn mënu ko werante ak ay ak ak ñi xam ne ñoom la àndal ñoom ñoo ànd ak moom ci ay xeetu wax yoo xam ne yi dara dara dara wéru ci dara wéru ci ñu dugal réew mi nag ci guta goo xam ne ah nit ñi dëgg-dëgg ñu ci gaañu ak ñi nga xam ne ñi am nañ ci ay euh, yàqu-yàqu bari na waande nag euh, lañ doon sàkk pour nasaxal réew mi loolu ñoom mujjewuñ ko am ki nga xam ne kii nag moo nekk ci bopp réew mi di président Macky Sall comme niñ ko waxee woon léegi chef suprême des armées comme toujours nekk na koo xam ne kii réew mi moo ko ñor nationaliste la boo xam ne ah réewam bëgg na ko nekk panafricain bu bëgg réewam nekk tamit ki naan père de la nation ak moom nag a ah, am nañ ci yaakaar ñu ngi naan waa réew mi yëpp xale yi góor ak jigéen nañu continuer di am yaakaar yaakaar bi mën naa nekk nañu dellu ci liggéey bi dellu ci activité économique yi ci marché yeeg ci lépp ñu dellu fa ku ci nekk di liggéey ak barab yoo xam ne yi dañ fay mën a sas sax ay ay ay xëy ay activité créatrice d'emploi ba nga xam ne léegi bu réew mi dalam nag loolu moom mooy indi relance économique bi ak sociétale bi nga xam ne ci jàmm ci dal ak euh, ak xel mu dal pour ñu mën a continuer li nga xam ne yi mooy xeex ak coronavirus pour que sunu sunu sunu population yi ñun ñi ñëpp ñu mën a mucc ci moom ñun nga xam ne nag ñooy patriote jàmbaar ah ñu ngi euh, métitlu ñu ngi métitlu bu baax a baax a baax li nga xam ne euh, moom moo am ci réew mi muy nga xam ne mooy violence bi ak vagabondage politique bi bi nga xam ne kenn mënul xam foo koy féetalee par li nga xam ne ñi ah ñoo ko doon def ndax amatuñu respect ci république bi amatuñu respect ci li nga xam ne mooy état de droit ñun nag ñuy wane suñu bopp ci engagement bi nga xam ne am nañ ko ci wetu président de la république loolu amul kiiroo ŋaayoo ñun ci loolu lañu ñu nekk bërki démb ak démb mille 2011 ba léegi ñun suñu taxawaay musul changé benn yoon ci wetu président de la république ñu ne nag ñun dinañu continuer di liggéeyal Sénégal bés bu jot di ko liggéeyal ba mujj gi ba suñu yax sax buy jariñ euh, ay ay ay ay barrage wala di jariñ ay ñag pour képp koo xam ne kii bëgg ngaa dugal suñu réew euh, loo xam ne li lu ñaaw la wala yëngal ko ñun duñ ko nangu loolu nag euh, duñ ko nangu ndax suñu réew mi nga xam ne sunuy mag sunuy euh, cosaanu mag ñi nga xam ne ñii ci diine ci xarañ ci xeex ci ñëpp de wane nañ ko ñi nga xam ne ñoo moom ñoo ñoo songoon réew mi ba ñu am ba am respect ci ñoom te loolu yëpp liñ ko defee mooy ci ci ñaq ci deret ci xel ak ci ak ci jaamu yàlla lañ ko amoon léegi nag ñu ngi sant bu baax a baax a baax suñu suñu suñu suñu jàmbaar yi ñu ngi leen di sant bu baax ñu ngi sant tamit Sénégal di sant di ñaan yàlla nag Nous protéger ñu ñëpp musal ñu te sénégal Sénégal pour l'accueil pour pour association des patriotes d'Ambar, cadre de réflexion et d'expression citoyenne nouvel ordre Chers à chers compatriotes je voudrais à l'entente de notre communiqué vous témoigner toute notre gratitude ainsi que notre sympathie pour l'attention toute particulière que vous accorderez à notre appel. La belle leçon de démocratie que le Sénégal a encore démontré à la face du monde par l'expérience et la maturité politique acquise depuis le 19e siècle par les luttes idéologiques, doctrinales et partisanes, par des confrontations et débats démocratiques, par le dialogue et la concertation, avec notre mode de vie sociétal, culturel et sociologique, avec une conscience religieuse et républicaine qui régit la vie de notre nation dans le respect du droit et du devoir citoyen. Chers compatriotes, avant de m'adresser à vous, Sénégalaises, Sénégalais, chers peuples du Sénégal, patrie de nos ancêtres, par la sueur et le sang, une pensée pieuse à nos concitoyens et frères d'armes tombés lors de ces confrontations issues d'une mésentente entre deux citoyens du pays dans une affaire privée, ce qui devait être tranché par la justice de notre pays, par les voies légales d'équité devant nos juridictions dans l'application de l'état de droit a fini par être une guérilla urbaine, due à l'appel presque insurrectionnel d'un des citoyens d'une influence politique notoire de ses partisans et d'une communication fallacieuse, utopique et instigatrice. La violence et le refus d'observer les lois et les règles de droit, un État fort et républicain qui ne se laissera pas trébucher par des aventuriers politiques, activistes, colporteurs de toutes sortes. Pendant ces trois jours, ont conduit le pays à des scènes de vandalisme, de confrontation avec les forces de l'ordre, républicains et compatissants en face de leurs frères égarés par la tromperie, les rumeurs, la manipulation anarchique de certains ennemis de la paix, la stabilité et d'émergence de notre pays. Avec l'intervention de nos guides religieux, traditionnels de la société civile auprès de son Excellence le Président de la République, M. Matissal, chef de l'État, chef suprême des armées, commandant chef de la coalition nationale contre le coronavirus et en charge de la surveillance stratégique du comité de suivi de la COVID-19, qui, en s'adressant à la nation dans un discours d'État magistral et émérite, a su gagner le cœur des Sénégalaises et Sénégalais. Un homme d'État qui a écouté et compris son peuple sur les restrictions liées à la COVID-19, avec l'allègement qu'il a autorisé sur les heures de confinement grâce à son combat pour l'obtention des vaccins contre celui-ci mortellement dangereux pour la population. Et la réorientation en cours de programme sur certains projets structurels et de politiques sociétales financières à l'endroit des jeunes et des femmes. Nos institutions n'ont jamais été ébranlées ou chancelées, malgré l'ampleur des dégâts et de la violence, à féliciter et à saluer les forces de défense et de sécurité, surtout par le patriotisme pour contenir cette foule hargneuse et infiltrée de manière agressive pour atteindre la sécurité de l'État. Ce qu'ils n'ont pas réussi, son Excellence le président Macky Sall, chef de l'État, chef suprême des armées, comme toujours est resté patriote et nationaliste panafricain, aimant son peuple et père de la nation, avec lui, cher compatriote, l'espoir est permis. Revenez au travail, aux activités économiques et créatrices d'emplois, dans l'apaisement de la relance économique et sociale dans la paix, la sérénité et la quiétude, afin de continuer la réponse contre la COVID-19, la survie de nos populations. Les patriotes Djambar dénoncent avec la plus grande fermeté ces violences et vagabondages politiques qu'on ne saurait qualifier par le manque de respect envers la République et l'État de droit. Notre engagement à côté du chef de l'État restera ferme et constant pour servir le Sénégal. Toujours le servir à ce que nos ossements servent de rempart contre toutes les formes d'agression et de déstabilisation envers notre chère patrie conçue par la sueur, le sang, l'esprit et la foi. Vive nos forces armées, vive le Sénégal, Dieu nous protège, nous le garde.